micro mm-hmm. bi ñu tëj. baax na. alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin salawatullahi wa salaamuhu ala sayyidina muhammadin abdihi wa rasulihi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره واجتناب مناهيه والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فهذا النداء من الله العالم الخبير جاء ليأمر أهل الإيمان بالتقوى وعدم التمرد عن الله تعالى وليرفع شأن الإنسان ليكون في المكانة اللائقة به فتقوى الله هي مخافته والخوف عمق يلحق الإنسان لتوقع مكروه يصيبه فالخوف من الله ليس كلمة تلوحه الألسنة ولكنه سلوك عملي يترجم ما في القلب فاتقوا الله يتصح العقيدة الزائفة وتطهير القلب من السيئات كالكبر والحسد والكذب والخيانة وحب المال والجاه ورسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وقال أيضا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب أيها المؤمنون لا بد من الرجوع إلى الأصل المشترك وهو توحيد الله وحده وحدانية وحدانية خالصة وتجهيز أنفسنا بأحسن وأحدث الأدوات من خيم أخلاقية ومثل ومثل عالية وصبر دائم وإرادة صادقة وعزيمة نافذة وإخلاص تام alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin salawatullahi wasalaamu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasulih ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammad ayuha almuminun ittaqu llah wabtahu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflihun walwasilatu hiya kullu takalif allati kallafa llahu biha ibadahu wa sharaha fi kitabihi maana dhalika masadiru sharia الكتاب والسنة والإجماع والقياس فأما الجهاد في سبيله فقد فسر الشيخ أحمد بن رضي الله تعالى عنه بقوله إني أجاهد بالعلم وبالتقى عبد الخير من والمهم للشهيد وأين هذا الجهاد من جهاد قوم قال فيهم عليه الصلاة والسلام إن في أمتي قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مراق الصحب من الرمية يقتلون أهل القرآن ويدعون أهل الأوثان لا يرجعون حتى يرتد على ذوقه وهم شر الخلق طوبى لمن قتلهم وخذلوهم يدعون إلى كتاب الله وليسوا فيه في شيء بارك الله فيكم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu ñu leen nuyoo ci ndokkule leen ci bés bu màgg bi di ajjuma yomul juma bi eh, sunu borom farataal ñu di ko daje ci mujjug ay bés ngir julli ko ànd ko ñu ngi leen ci ndokkeel di ñaan yàlla mu baamu ko lu bare ci dañ fekkee di ànd ak ragal yàlla ci loolu nag ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ci ragal yàlla ak topp ko eh, topp lim digle wattandiku yim tere loolu moo tax mu wax benn aaya boo xam ne ñett yépp a ngi ci biir dafa ne na ragal yàlla te wut lu ngeen di àggee ca moom bu ngeen noppee yi tamit mu seen seen seen kàtt nag seen lépp ngeen def ko la la ko nag tuflexoon loolu lépp loolu lay sabab boo déggee boobu woote yàlla woo ko nit dafa bëgg ñi ko gëm ñu ragal yàlla bañ ca jaxase leneen ndax loolu mooy yëkkati dara ji nit moo yëkkati nit it ci ba eggale ko foo xam ne mooy fa mu fa mu mérité wu ragal yàlla nag mooy ragal buñ ko dee wax ci baatu arab mooy nit ki loo xam ne daf koy def day nekk ci biiram ngir mu bañ ko fegal ko lu mu war lu ko war a ñëwal loo xam ne bëgg ko loolu lu ñuy firi ragal kon ragal deesu ko def di xaar wala ku ko xas def lañ la ko lañ la ragalloo fokk nga di ko bàyyi xel waaye du lu ñuy wax moo tax ragal yàlla du baat boo xam ne rek dañ koy wax ci wax ci làmmiñ wala ngay feeñal loo xam ne da ko waaye nit da koy bàyyi xel ci biiram nga xam ne day tax lu baree bare bare ci boppam du ko du ko du ca dugg ndax day xam ne am na lu ko lu ko suñu borom digg ci la la tax mu tere ko la te loolu bu ko defee foofu xel duutu dal kon nag loolu mooy ragal yàlla bu noonu lay demee ragal yàlla it bokk na ci nga fexe ba di corriger sa sa pas-pas ndax pas-pas léegit léeg-léegit mu nekk loo xam ne dafay nekk mu zëyëf maanaam day nekk loo xam ne day rax day rax mooy wane loo xam ne bokkut ak la nga la nekk ci biir te loolu la nga koy defee mooy nga rafetal sa xol nga seetal sa xol seetal sa xol nag mooy nga seetal sa ci lépp lu ñaaw lu yàlla tere lu yàlla tere nag bari na daanaka lu bon lu ne suñu borom da koo tere waaye nag teewul addis yeeg alxuraan nag lépp danañ ci def léeg-léeg mu détaillé ci am ci yoo xam ne nag dafay def su nekkee ci nit nit ko mënatul a baax wala du mën a bu dañul day xaw a jafe gëm yàlla wala ragal yàlla nekk ci moom loolu bokk na ci rëy loolu bokk na ci kiñaan maanaam nit ki na woyofal boppam xam na yàlla rek moo am solo nit ki na rafetal xolam lu mu yéene boppam na ku yéene keneen waaye bul xool yi fi jàmbur bul xool keneen na la sa bopp day sëkk lu nit am yéene ko ko loo am sax yow yéene ko nit loolu moom mooy rafetal xol li ci desit mooy fen muy nekk loo xam ne dafa la yaatu lool dafa yaatu lool te yaatu gi tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne waxuma sax di wax lu amul waaye nett li rek sax nee na bokk na ci baakaar yi ci fen bu gën a mag ci bokk ci gën a mag ci fen nit nee na ma wala dégg naa rek wala wax bu noppi ne dama ko dégg rek loolu lépp dafa bokk ci fen te yonent bi sallallahu bokk kon nag wax leneen lu ci amul sax far kooku day beneen mbir kooku du dafa bokk ci li gën a ñàkkal doomu aadama mu gën a jëm fenn wala mu gën a jëm ci kanam wala mu gën a jëm ci boromam bu xasee dugg ci nit rek gëm yàlla day dañ da ca des mooy wor lépp loolu di seq ak sa moroom nay dëkk ci yow ndax warit du càggi ni eh, eh, wax rek ne ko danaa def nangam te defuma ko waaye di wax ak nit rek mu gëm la nga wax te yow gëmoo ko loolu képp ci bokk na ci wor yi gën a bokk ci wor eh, moo tax nag li ci desit mooy bëgg alal àdduna alal dafa nekk loo xam ne moom doomu aadama ànd loo xam ne lu luñ jàngat la lu xóot waaye mënta tàggoo ak doomu aadama nag waaye nekkul nag loo xam ne dafa war a nekk ab jëmmukaayam waaye dafa war nekk nekk ab jumtuwaayam nag ni ñu koy faral di waxee. yonent bi sallallahu alayhi ne tax na ba nit ki buñ ko joxe woon ay xur yu mu feesal dell ak alal buñ ko ci joxoon ñaar dana ne su ñett bu baax kon dafa nekk loo xam ne dafay fitnaal nit. nee na nag doomu aadama dara feesul ci moom dara alal mënu koo doy ci moom dara feesul biiram it lu dul suuf maanaam bu ñu ko suulee ba def ca suuf loolu kese mooy mooy tax te loolu bu boobaa eh, defe naa ne duutu am solo kon nag moo tax nag li gën a am solo mooy dellu ci li nga xam ne moom lañ bokk mooy wéetal sunu borom sellal ko waajal suñu bopp ci lépp loo xam ne mooy tax jikko yu rafet ak loo xam ne dafay nekk ay exemple yu kawe. di muñ jëm fu baax dëggu amuk dogu te sellal ci sa xel euh, boo alxuraan de wax nag euh, wabtaxoo ilil wasila al wasila euh, ñëpp xam nañ ne léeg-léeg sax ñu di ko firee ki nga jokk waaye wasila baat bii loolu mën a caa dugg waaye wasila mooy lépp loo xam ne sunu borom da la ko digal nga xam ne mën nga caa jaar ba egg ca moom moo xam julli la moo xam woor la moo xam lim la teg ci ay farata loola ka lay do ka doxal sa diggante ak loola itam nga xam ne moo la cee dugal ba tey mënees na ko ko tudde waaye li ko tax a jóg mooy lépp loo xam ne nit ki day tax mu mën a egg ci borom ba am texe googu xam ne moom la ci boole mooy mooy mooy wasila euh, li ci des it mooy li ñu xam ci baatub jihaad nga xam ne raw na la yaatu na lool ci àdduna bi jamono yi naka jekk sax mi ngi woon ci àdduna waaye suñ defe naa ne jët xóotal Cheikh Amadou Bamba moo ko firi firi woon boo xam ne ba léegi bu ñu ko doon jàngat di ko yaatal dana nekk loo xam ne àdduna mën na cee jaar ba ba ba ba jëm kanam ndax mooy nit ki xam waaye nit ki yem waaye nit ki tege fa mu war a tege nit ki di wattandiku lépp loo xam ne du dul noona loolu bu nit ki on tegee ci yoon boobu rek kooku moo mooy mooy li nga xam ne moo ëpp solo ci wàllu boobu waaye liñ ko tuddee léegi yoon bi daf cee waxoon nee na dana am ci jamono boo xam ne ci aw nitam eh, ñoo xam ne eh, wax dañ koy man lool waaye jëf day ñaaw wax ja day rafet waaye jëf ja du rafet dafa mel sax bu ñuy waxee alxuraan danga nga ciy yéemu lool mën koo firi lool waaye wax ja génnul seenu seenu seenu seenu put foofa rek la yem ndax daanaka la ëpp ci la ñuy doxee daanaka diine da cay loroo rek ndax dan nañ sax ba léeg lekk nga gis ñoo xam ne nit ku baax la ñuy gën a bon bañ maanaam yaqtuluuna ahlal quraan wa yad'uuna ahlal awthaan loolu moom lañ gis gis nañu ñoo xam ne dañuy dem ci jàkk rey ña fa nekk waaye ñi xam ne ñoom jaamuwuñ sa amuñ sax téere ay xiram lañ ñoom ñu bàyyi leen fa kon dafa mel ne loolu egsi na loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon moom mooy mooy ñi gën a bon ci nit ñi fu ñu leen gis nañ leen moyul kon daal dafa mel ne diine lépp lu nit di war a jariñoo ak lépp lu war nit di jaar ak fépp wu nit di jaar moom wax na def na ko euh, ki nga xam ne tamit moom nga jaarale sa diggante moom ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkatul ñi ko wootu ñu am ci Cheikh Amadou Bamba loolu tamit loolu mooy taxawal moo koy mooy mooy la mu daan def nga di ko def fa mu daan yam nga di fa yam lu mu daan doxee nga di ko doxee lu mu daan waxee nga di ko waxee bañ caa yokk bañ caa dugal lu ci sa yëfi bopp loolu mooy pas-pas loolu mooy li nga xam ne mooy diine kon nag yàlla na nu yàlla dimbali ci loolu yàlla na ci yàlla saxal yàlla na nu yàlla saxal ci ngëm yàlla na nu yàlla saxal ci jikko yu rafet yàlla na nu yàlla saxal tamit ci ci rafetal su dox yi ci àdduna allahumma salli ala sayyidina Muhammad